son successeur xaaruñu leneen ci président la lu dul rek mu wax ñu ni le deux moom président Macky Sall dana passer foofu pouvoir bi son successeur. D'accord, mais on a vu aussi sur les réseaux sociaux depuis hier que Khalifa a une double nationalité, a une nationalité française. Qu'est-ce que vous en dites? Je savais bien que vous me poseriez cette question. Alors, je voudrais vous rassurer. Rassurer l'opinion publique nationale et internationale.

jamais posé ma candidature. Et je veux que ce xamoon naa ni soxna si dana ma laaj lool parce que dafa am ñu bind ni Khalifa sàll am na ñaari nationalité ma wax ne code électoral bi nga xam ni moo décidé que tout candidat à l'élection présidentielle dafa war nekk exclusivement de nationalité sénégalaise dama ci bokkoon fekkee ko fexe ba accord am ci loolu deux mille dix neuf candidat laa woon élection présidentielle ma déclaration sur l'honneur ni je suis exclusivement de nationalité sénégalaise benn nationalité laa et les Sénégalais 2024 ma bindaat ni je suis exclusivement de nationalité sénégalaise ma ne tey laa ci mujj wax wax naa ko àdduna bi yëpp yëg ko su fekkee fii may wax ak duma depuis deux ñaari élection yi ma bokk duma exclusivement de nationalité sénégalaise ku ko xam ku ko mën wax wet na ko prouver mais dootuma ci tontu kenn parce que nag mbir mi nu nuru désinformation ak manipulation mani su fekkoon man Khalifa Sall je n'étais pas exclusivement de nationalité sénégalaise du ma doon candidat mukk du ma doon candidat mukk merci